jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag ñu ñëw ci kenn ki nga xamante ni vraiment démb wanewaat na boppam ci làmb muy Jackson démb nekkoon le 6 mars 2022 fële ci arène nationale Diamond Events moo ñu fa woon mu waroon laale ak Ahmed Deme ñoom ñaar ku ci nekk nekk xale yoo xamante ne vraiment waxoon naa ko ci biir wax ji danaa leen Ameth dem moo ko jiitu ci làmb moo ko njëkk a bëre waaye Jackson xale la boo xamante ni vraiment bi mu duggee ci làmb ba léegi mu ngi marqué ay empreinte mu ngi def ay preuve ci làmb waral am na ndam dem mu ñu seet si ko fekk ko këram waaye Jackson moom fekke woon démb stade mu sottee ko xaw ma soow mi moom boobu amoon na goloria quoi maa lay nuyu. waaw jii maa ngi lay fay. Hmm. maa ngi sant yàlla bu baax di jul si bi. Hmm. sant sama ñaari waajur. di ñaar suma yaay fu mu tëdd yàlla na gën a fu mu jógee amiin yaa rabbi di Bakay Se mm. yàlla na yàlla yërëm te xam mm, mm. bu baax sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy yàlla na fi yàgg loolu de ak capitaine Mame Cheikh ak Mame Babacar maa ngi nuyu ñëpp waaw maa ngi ni soow bi nga sottee ko stade soow bi dafa am meew wala lan la parce que soow bi dafa far quoi loolu sax moom wax dëgg xaw ma lan la sax soow la wala xamoo lan la soow la est non xaw ma sax mais c'est solo loolu. nuru soow de. yaakaar naa du soow de yow dañ lay jox rek ne sotteekoo nga sotteekoo. ma jox ni ma sotteekoo ma sotteekoo. loolu est-ce que wóor na. waaw ah, wóor na ndax ki ma koy jox wóor na. Ah, mhm. affaire bi fi muy jógee bu wóoree rek dina wóor. quoi dina wóor waaw fi muy jógee ku la koy jox bu wóoree rek dina wóor. mais fi muy jógee bu wóorul. wóorul wóorul. waaw <laughs> loolu dafa leer. démb nga ñëw ci làmb ji yaa ngi ciy yegg si ban heure ak combat bi dayo bi gisoon wax naa la ko keroog bi nga ñëwee ci làmb ji nee naa c'était la première fois ma gis Jackson di bëre combat nekk ci ruqam nanguwul génn def benn sorte adversaire am tamit pare yéen a pare bëggoon préparer noonu combat bi bis bi moo laaj loolu wala ay conseil la luñ leen jox ci làmb ci waaw man moom <clears throat> noonu laay pare combat quoi man rarement laay pare combat la def ay sorte sax hmm. c'est-à-dire su ma defee sorte sax comme ñu mel ni yéen am sama lonko ngeen du mën a bañ hmm. mais bu nekkee man ak man ak man du ma du ma du ma pare combat di def sorti xam nga. Hmm. sama lépp dama koy laax. Hmm. noonu laay paree combat quoi. Hmm. Eh. nga dugg ci stade bi sa adversaire moom dafa simmee ko ñëpp toojal ko. vraiment gis état de forme bu macha allah bu mu yor ba nga gisee Ahmed Deme mu simmee ko ñëw nga ci moom di yor benn béjjën bu xonq di ko ko joxoñ moment boobu lan nga gis ci moom. waaw entraîné na wax dëgg yàlla nee na si forme bu baax macha allah entraîné na combat xam naa ne bëgg na combat bi. Hmm. mais man de jëm naa ne man lu ma daj am tam dajul génn wàllam loolu laa jàppoon ma ko gisee tamit man na ma ëpp nii mais xam naa doole du ma ko ëpp quoi. Hmm. waaw xam naa lu ma daj. Hmm. baax a baax parce que ku dem saal ku demul saal bokkuñu. ku yëkkati wañ ak ku yëkkati bokkuñu quoi. kan moo doon yëkkati wañ de mooy dem saal man du ma dem saal. man man man man man place daay dem contact. waaw. combat bi nan nga ko doon entraîner ñaata séance nga doon entraîner par jour. combat maa ngi ko doon entraîner deux séances. suba si ma dem géej wala ma dem din ngoon gi ma contact. Hmm. Hmm. noonu laa war entraîné. mais dañu gis état de forme macha allah donc ñuy nee nañ da nga yokk poids ñii nee nañ da nga wàññi poids man dama gis ni poids bi da nga ko wàññi quoi nga ci def. waaw loolu la ma comment naa soxal laa hmm. wàññi naa poids bu bëree bëri sax. par rapport naa soxal. lu tax nga wàññi poids bi. non nu mu bëggoon bi neefee rek ak comme rapidité bi gaaw bi waaw parce que ñun suñu bëri lépp day gaaw quoi. Hmm. te xam na ku ñuy bëre bërekat la. Hmm. moo tax ñu wàññi woon poids bi pour mën a mu bëre bu gaaw. ñu hmm. ñëw ci digg géew bi gis ko yaag sa adversaire. mu taxaw nga taxaw. arbitre bi sifflé mën nga ma expliquer nan nga bëre a Ameth Dème ak nan nga ko daane. waaw mën naa ko expliquer arbitre bi bu war dina ama mu taxaw ma taxaw. moment boobu yaa ngi koy nottaale en même temps. man su ma bëree yow avant ñu géew maa ngi na laa war a daane wala fa laa war a mën a jaar. da nga koy xool da xool mbër mi di ko xam. waaw da nga xool physiquement xool fan laa ko mën a jaar. Ameth Deme bi nga ko xoolee lan nga gis ci moom fan nga waroon mën jaar. non Ameth Deme bu ma ko xoolee xam naa ne kii nii du yàgg quoi parce que nu mu signature bi dinañ noonu la bëree gëm naa du hmm. xale la te dina dëggal boppam. Hmm. dëggal boppam nag moo ko rey. Hmm. waaw dama ko signature dafa jaakaar ma ñëw pour reyante ak moom quoi. loolu la loolu la fa ma ñëw arbitre ay deux secondes taxawul. xam ma dox si comme deux mu mu sànni coup mais coup bi ma ko xool ma ma moytu ko jël ko suuf. Hmm. ñu ànd rëpp jogaat ma jëlaat ko suuf dal ko plaqué. waaw la am ñu gaaw 27 secondes. 27 secondes. moom nee na ci moment plaqué bi bi muy ñëw am na première action bu fa xew nee na moom bi rëpp quatre appuis moom mu bàyyi nee ci continuer action parce que moment boobu santir na ni rëpp nga carte d'appui mais daf la bëggoon gën a mais nee na yow rëpp carte d'appui yëg loolu daw continuer action bi. parax paraxee ko ci action boobu nga ko daanee mais d'accord na ni daan nga ko mais première action bi moom moo la daan loolu loo ci wax. non xam moom mag la ndaanaan <clears throat> yàgg na yàgg na bëri daan jëlee rey te ndaanaan la man nangul naa ko ndaanaan bëgg na làmb yi ñëw na mais yàlla mu moo suturaal man mënuma ko. moo suturaal may ma ndam déggoo. Hmm. bu ñu bëree noonu ñaar ñëpp ñoo rëpp ndoo comprendre nga suñ quatre at bi fekkentewul comprendre nga. Hmm. fekkentewul xool xoo xoolal image yu bu baax a baax. Hmm. comme ça lel Vitar nan nangu rek. ku doon yaa moom moo ma doon du ma sa morom bu suuraa dinaa la woon du ma sa morom ñu daal ay ay vingt sept ay nangam di contesté quoi. moom bëri ñu ñaari amul ku bàyyi bëri bi action sur la. action sur action man bàyyi wu ma man su ma xasee ba jàpp dama bàyyi gis nga mooy bëri naa dama koy jàpp ba muy daan bàyyi ma ngeewale moon su ma jàpp daa nga tëdd du ma bàyyi. moom amul fu mu bàyyi moom tamit na nangu daan naa ko jël bu rëy waaw man ko maa daal. Hmm. Hmm. yaa ngi koy nga daan ko ne génnuma caare damay desaat caare mais des bi nga des caare daa mel ni fuuy da cay am parce que munoo daan amee dem ne rëg nga soxla. waaw rëg moom mooy kan. rek lu mbër la yi. moo daan guy gi barki dem daan Elton. waaw daan Gris 2 doon maa daan Pam Doy daan sang daan Bulaal booy gën a saf maa daan waaj. waaw daan démb am na daa kii doole am na doole. Reug Reug bu amee droit taxaw laaj laaj la moo ko boole parce que ku dugg géejawaay daan guy gi boo laajee la dëgër de jaadu na. waaw ku dugg tamit laaj daan Ameth Dème Ameth Dème patron Reug Reug am naa droit laaj Reug Reug laaj ma ko pour si tere yi nii wala si lii dama ko laaj pour daan ko. non bi du doon laaj parce que laaj na la dëgër nga laaj ko. barke mais du doon ko laaj pour ku la jox avance am tey nga jël ko. billaahi wallaahi ko. billaahi te su ma daan ko léegi fu ma lekkee awaanam daan ko si vite fait la du ma ko daan daan du vite fait koy daan. Hmm. wallaahi. parce que doomu caaray la neexut a yëngal de. ah parce que doomu laa daan daan doomu caaray. ah mais ñooñu xam nga euh, mën nañu wax ni Ameth Deme moo la ci laamu moo la mag ci âge mais Reug Reug sa morom moo jiitu si waaw. billaahi moo jiitu si laamu moo mag foofu su ma ko joxee ma daan wa waxuma ko pour ay neexal ak pour yooyu noonu balaa nga waroon gëm ne mu taxaw. Hmm. waaw diggante bi nga bëreeg am na dem. Hmm. démb ak promoteur yi ñu lay contacter. non instant bi moom ñooy wax quoi moom laxaat xam nga sama manager ñooy wax mais xam nga dañuy def nang nang rek xool. def nang nang ñu ngi lay proposer ay adversaire comme ñan lañ la wax. waaw ñu ngi moom dañ genre jël de xalaatoo ko. moo ko ñëwul jël. non moo da daan jën kay mu jë daan mu mer. danga koo ñemee jël. ku mu ranta ñemee naa ko jël billaahi. noo taw ay xale lañ di liggéey. dara ñoo ci ruux di liggéey. kuñ lam boolool ñu bëre waaw. Hmm. man chaque jour su ma man benn adversaire laa mos jël ñun Jackson moom mi naaru sokaas mais saa boo ko jëlee danaan ki day xaroo. Eh, Jackson kon naaru sokaas rek nga mos a jël ñu ne yaa ko mën. naaru ma jël yëpp te boobu gënoon nekk pression ci yow. ci laamu. naar ku ko xam la maa ngay nuyu nag. suma hmm. grand na hmm. si laamu ji bu baax a baax a baax. jàppale na na ma kay. ci combat bi yaa amee dem. waaw jàpp <laughs> baax a baax a baax man <laughs> mu daal la ngay jàppale. ngay jàppale booy sama deret sama mbokk waala waala. bi sa mbokk la. non boobu xam nga laam bi taxaw na. ah bàyyi ma non na si jàpp na si bu a baax a baax a baax wax dëgg yàlla naaru. Hmm. maa ngi koy bu baax di ko ñaanal ko ma waaw mu hmm. tax si du combat bu neex. non bisuguma ko léegi. lu tax man man man mbër mu daan laa bëgg de. bëggoo ko daanu. lu ta mbay guy gi ndaanaan la de. waaw bëggoon ndaanaan la kay champion. sarko daan la ci làmb. waaw ndaanaan la wax dëgg yàlla mbay bi moom la mais man mbër mu daan laa bëgg. Modou Anta daa daanu te danga ko bëgg. non bokkuñu. nuyu <laughs> bokkuñu. ah waay bàyyi looto looto looto looto Jackson looto waay. jëli ma wax la waay. ah mais jëli Modou Anta daanu na. Ah. ñu proposé la nga bëgg. mbay ah. guy gi ma proposé la nga ni bëggoo parce que dafa daanu. non fu ñu nekkee ak façon daanu yi bokkuñu ba tey. mbay guy gi fa nekk ci kii bi. non non même pas. non si mu ngi ci saako bi wala. waaw mu ngi saako yi. daanu ni saako daanu dem loolu la làmb koy loolu la. man non mais Mbaye Gouye Gui ci ci ci victoire ñaari la jógee. nu dem. kon day xaar. day xaar waaw. léegi d'accord naa bu dul bu dul ñoom ñaar. Hmm. léegi kan nga bëgg kan nga xam ni jàpp nga ni yéen ñaar parce que gars yi dañu bëgg combat ay xale yoo xamante ni dinañ xeex dinañ bëri. da ngay teg seen image teg yaa Reug Reug lan seen problème. sama mi ngi caaro génne gu ma fa laa wat samp man caaro laay bëree bëree ma keneen caaro laa bàyyi sama siège. ah bëggoo feneen fu caaro. waaw benn adversaire nga fa am. waaw. Hmm. moo tax may bëri. rëgg-rëgg mu ngi lay xool wax la moom rëgg-rëgg laa bëgg mu lay xool ne ko yow man dëkk man maa bëgg bëri man maa waaw su ma ko joxee ma daan ko yaa ko dëkk maa ko dëkk yaa ko bëgg bëri moom te buñ la joxee ma daan ko rek ah loolu de sañ-sañam la kilo la dee de xaw ma kan la war na maa dee de maa dee de maa ko wax de hmm. mais adversaire bi bi ngeen jàppante sentir nga ne am na doole am na dem mi ñu gis état de forme bi mu yoon ñu ci bari ci làmb ne nañ dafa am volume mais amul doole yow ni jàppanteeg moom ni runkum dajeeg moom hmm. lan nga sentir am na doole wax dëgg yàlla am na doole ko entraîné na man sax dafa maa bett état simee ko. waaw. na ñu bari kay ci lamb naan tànk du am loolu noonu quoi mais am doole wax dëgg yàlla. Hmm. am doole waaw mais doole xale quoi. xale. bëre xale. bëre xale woy xale. lamb xale. reporter sax a non <laughs> Jackson Jackson léegi actuellement Ameth Dème lan nga koy wax ci làmb jantal grand la. Mhm. te kenn mosu ko xamee si yoo xamante ne ay wax quoi. Mhm. grand bu baax la grand bu benn mhm. man mi ma ko daan war naa ko a daan. man mën naa daan ku nekk si làmb. jour boobu yàlla moo ànd ma daa mënoon naa ko daan mais yàlla mën naa ànd ak moom moom ñànk pare ñànk quoi. na gëm yàlla dama entraîné waat jaaraat combat waaw man dama wàññi sama xaar daggal sama xaar bu bëri laa dagg jox ko pour ñu bëre. Ah. waaw xam nga bu ma gënoon naa ko daan du ma loolu noonu. wallaahi lazim laaj ko. signature bi naa ma lamb yaa ko tëgg man maa dagg sama xaalis sama kase lu bëree dooleel ko pour ñu ñaar yu bëree amee daan am di su ma ko daan dafa fu may yóbbu mais bu la daanoon nag ma daan waaw mooy loolu affaire yi lépp lu si dagg sa xaalis jox ko adversaire maa dagg sama xaalis lu bëree ma promoteur dama am borom kase ma dagg sama xaalis waañ sama xaalis lu bëre jox ko billaahi waaye promoteur bi jox ko motin ko pour combat bi taxaw hmm. àdduna lépp risque la ñu rawluñu dara ay xale lañ hmm. comprendre waaw te yàllaa ngi suturaal yàlla bu ñu naaw suñu bopp yàlla bu ñu yëg succès Hmm. waaw loolu laal moom solo quoi. mais bi ngeen wéetee ci digg géew bi yéen ñaar waxante wala dara. waxuma ko wax ñu ñaaw waxuma ko wax ñu ñaaw man damay respecté sama adversaire sama adversaire man. mais am na seconde boo ko bëggoon wërale mu bañ de. waaw loolu dara de. non mais. <laughs> moom daal na dem entraîné waat uraat combat. Hmm. waaw a daan quoi. Hmm. xam ne ñun ay xelal lañ. waaw ñun daal am na dem duñ si duñ si zibilé. waaw am na yu gën a metti suñu ne suñu kanam waaw. Mhm. boo doon xayma ci mystique ñaata nga ci def xaalis. mystique bi bari na trop. si mën naa ko totale bari na de. na am kay gaan am daa jaay xaram sax mi doo ko si combat bi gaan. doo ko ay laadum billaahi am daa jaay ay laadum mystique bi dafa bari trop. ah affaire yi tamit xam am na importance ci làmb bàyyi leen ñi leen seetaan. bu ngeen hmm. ñëwee ne ñi leen di seetaan ñi leen di seetaan ay muslaay ngeen di wut rek. diw mais yéen li doon sotti doon takk doon joxañ am na dem loolu muslaay waaw mos ko doon jox Moussa la. Moussa li ñuy yàlla am na dem. ah dama mos a am na dem ma du ma paas benn saako galaaj ñaari saako galaaj. man man nekkul mbër yi indi foofu la ñu maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa la ñëw fii fekk sa gars sama grand bu baax nag. Moussa Boye xam nga Moussa Boye Colabane. la waala waala ñoom laay borsa xam nga hmm. ñoom Issa ñoom Arama hmm. ñoom am buun baaba laa Jóob saari bu xam nga Abdou Kuli borom bis bi hmm. xam nga maa ngi sant ñu bëree bëree bëree sant ñëpp Moussa Boy boobu mention spéciale billaahi maa ngi koy sant bu baax kooku sama grand la suma lépp waala waala la damay may xaas bu bëre waaw jàpp si combat bi waarum ngaas gi di sant amen ñaaw bu baax a baax ñaa couture lu ma sol lu ne moo ko ñëwal kara du saen xam nga lu ma sol lu ne moo ko tapé maa ngi bëgg ñëpp waaw mais ñoo gën a pare noble. Hmm. waaw ñoo gën a pare noble. <laughs> noble la ñàkk moo gën a pare. <laughs> ah ah noble de xale la boo xam ne waxul benn mag bàyyi laa la yàlla. ii ñaaraa mën a ñëw. ñaaraa mën a ñëw nee na du wax kenn kaa ñu ànd waaye ku jooy dëpp. ñoo ñaaraa mën a ñaa wala teel si rek. <laughs> maa ngi koy jaajëfal bu baax moom Jackson wane wanewaat na boppam ci làmb démb Jackson nag bu bëree daan laaj Modou Anta bu Thiès jaadu na